bu wàll yaa ne ci doom rek jomb ko. loolu bi lay dara jomb la doom ci man. kon c'est la ngéwél. waaw loolu day sikkuut doom c'est la ngéwél moom. ñëwal père. romba cakkin. wura gi da daba gi da rombin ba taas. romba cakki gi gi. romba cakkin. wura ba ndabi da wura ba ci ba taas. romba cakki gi gi. wuramba cakin uragi dada bagi dorambin batas wuramba cakin uragi dada gada gida urapin batas wuramba cakin uragi dada bagi dorambin batas teregi teregin gin gin kaca gin gin gin allo. waaw. allo. allo. waaw maa ngi lay dégg de. waaw sëñ bi. ma ne waa wàññil tuuti tuuti. allo. wàññil téléphone bi maa ngi ziar. waaw wàññil téléphone bi wàññi wàññi télévision bi. télé bi. wàññi télé bi. ñu ngi lay dellu ziar baax. bu déglu ci télé bi allo dee leen déglu ci téléphone bi te bañ déglu ci télévision bi ngeen di jàkkaar lool di gis seen bopp jërëjëf dina ñëwaat alaaji maaga tey la dépense ëpp tey li nit ñi gën a xiif du moom ngay jox pàkk yi parce du mooy ki koy capté Modou Mbaye n'a rien dans sa tête du géwal

pendant la nuit Butu Mbaye pendant la nuit eh pendant la nuit ma ne pendant la nuit il faut ñu def ak la nuit accélérer la cadence ndaw rek ma ko génn ma ko ci biti génn ma ko ah. ci biti ay ca nga dem commandé après comme ça ñu la ilaha illallah diw ah. lam nañ billay buur tukki tekki dafa am toog fi tekki am ku fi bàyyi réew mii waaye nag ñoom bekkaay mbaye moomu du may garmi géwélu traditionnel yooyu man seen kaw nekkoo ci kaw kenn biram kodd ngay tal taleeg li ngay baadoo sama kaw nga mel ni toole yaa ñàkk kersa ah. xanaa yëglu rëy rek bi noo séddale bi Màkka yi Amadou Mbaye Garmi fekke wu ko président Macky Sall ci moom moo ne dëgg am na droit am kii ba muy gàddu weer gàddu ba Amadou Mbaye Garmi ci place de l'Obélisque fa la ma fekk amul lenn loo xam ne dana ci xew ma koy laaj kenn maa ko fekke nar naa mitt nar naa sab nar naa neex building nee na ko kuy tux du ma daan waa melu lu muy tux ah déedéet yaakaar naa du marijuana xanaa arbitre sifflé la building a ngi dox ci kawam dumbule nga ne tekk ndeysaan waaw waaw bu ma doon building damay tey eh door ko jël na ko prime dip prime dip prime dip prime dip xar na ko xar na ko yenu na ko laay laay la laa laay bay dumbul laay bay dumbul galgal ba mbot ma galgal ba mbot ma laay laay la laa dëgg du yoon maanaam nit di filme nga ñëw jaar ci objectif bi kon foofu faute bi mun nañ wax ne que ki jaar ci diggante bi la benn mais ñaareel bi li nga xam ne duma ko baal futur média ak ñaari yeneen ñaari caméra yi demoon mooy ñetti caméra la ñu génn lañu amoon génne leen site bi na site bi génn léegi <coughs> site bi génn site bi génn na site bi génn ah coupé leen ma on la cadence. on accélère on on accélère on Rabia Aidara.